ñu ngi siyaare bu baax a baax tey bëgg lool tey ñaanal Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te wér di ñaanal Serigne Cheikh Saliou Mbacké mu yàgg fi lool te wér di ñaanal sunu kilifa gii toog di Serigne Saliou ndigal Thioune mu yàgg fi lool te ànd ak wér ñu ngi siyaare bu baax di bëgg ci laaj bi li ñu li nga xam ne moom lañu yëg rek mooy li ñëpp yëg te nekk fi mooy ak cant ak cant ndax Sëñ Tuubaa euh, am ndigal liggéeyal ko du ñëpp ko am. sëriñ Touba jox la ndigal nga jëfe ndigal la ci teewaayu sëñ Béthio nga xam ne jumaa ji tey bi mu koy tàmbali e, sunu borom tawféexal ni mu nu mel ni tey e, daara ji am naa fi at di jàngal xuraan waaye bu ma sëriñ bi yóbbee njaareem sëñ Béthio bu musaana jóge ndakaaru di ñëw nga xam ne e, six heures du matin dafa daan romb ci man bu musaan di ñëw fii day bëgg fekkee si bu ouvrier yi di tàmbali ndax bëgg koo ànd ak ñoom sëñ Béthio liggéey bi da koo ànd ak ñoom ci jëf waaye da koo ànd ak ñoom euh, daanaka mën nañu ci dooleem physiquement sëñ Béthio daan taxaw di liggéey ci liggéeyam bi kon bu ñëwee ba tey euh, sëriñ Cheikh Mbacke di taawam bii woo taawub sëñ Béthio bii di sëñ Saliou ndigal ci woon ngir ubbitab jumaa ji loolu ab sakk rek la mën a doon ci ñun jàngalaat ñu leneen. ne mbiru sëriñ bi moom du taxaw day mel ni waxoon na ko moom sëñ Béthio ne personne n'est indispensable ay jëmmay dem rek waaye yeneen jëmmay ñëw te lépp sëñ Tuubaa la tànki kanamu sëñ Tuubaa yooyu sëñ Tuubaa rek lay doon nag du jéggi moom du ko jéggi du jéggi du jéggi ay tànkam ci moom rek lay des nag waaye tànki kanam yi mooy wël mooy mooy mooy mooy wëy ci ñii nga xam ne mooy ay jëmm yu mu fi bàyyi te di ne ci ñoom nga xam ni seen jëf ak seen wax lépp sëñ Tuubaa lañ koy jàppe ci ñoom kon bu fekkee tey dañoo nekk fii Eh, jumaa li muy baax a baax te suñu borom wax ci alxuraan wax ne néegu boppam la waan na la masaajida lillaahi nga xam ne néegu boppam la li muy baax baax baax baax ñun da ci am lépp beneen plus buñ ci yokk mooy Serigne Saliou di Serigne Touba digal la nga tabax juma. loolu nag day leneen loo xam ne daa bokkul ak ak ak leneen ndax sëñ eh, sëñ mot dem dane woon seen tubaa sama julli yi ak sama woor yi ak sama natt asaka yi lépp jël naa ko jox la ko addiya sëriñ Tuubaa woote ne ren mëddam mii li mu wax na xam ngeen mooy la mooy lan ci man ñu ne ko déedéet mbàkke mooy mu ne mooy nga mel ni ku yor sa kook ñëw ci borom géej ne ko sa gi ak sama bi bëgg ñu boole ko borom gi nangul waxuma gi la mel ci man kon jëf jii nga xam ne mooy tabax jumaa li muy baax daa doon loo xam ne daanaka promotion lay doon kon tey Serigne Cheikh bu ko digalee sëñ Saliou ndigal cuun mii ñu ànd kook moom niñ ci mën a def mooy sant ci rek am ci mbégte ci fekkee gi nu ko fekkee ak jëfe li ñu jëfe ndigal it ànd kook moom